bismillah waaye accident yi de lan mooy doon saafara bi moo jaaxal ñëpp ubil libération yi ne kaay ne dama ne la accident day musiba mbaaba kumba amate na ci tali bi laa la wax aha waaw lu ci tolloo juróom-ñaar ci ay doomu adama day ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi raji dama ne la ca kompentum la source ané accident yi day ah mais doy na waar diggante Diourbel la Fatick Koumpentoum ak Mboro lu tolloo fukk ak juróom-ñetti ci ay doomu aadama ñoo dee ci ñetti fan laa la wax la ilaha illallah libération yi ne kaay ne ma ne la na ngay teg nag njëkk ne ngir am lël ndaje la ci wàllum transport boobu lañ fas yéene waxtaane dama ne le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw moo ko sant ministre transport Alaaji Malick Ndiaye yéene kaay gi ne waa ministère transport googee danañu organiser day séminaire la le 19 ak le 22 août 2024 bi lée ca stade Abdoulaye Wade la ndaje moomee nag dana dajale ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllum transport googe ngir waxtaane lii di xew kon ci kaw tali bi 24 heures yéene kaa ne mais ni tali bi di def doomu aadama ñaaw na lu mee démasqué réew mi quotidien ne week-end waaw lu tolloo fukk ci ay doomu aadama ñoo dee allahu akbar le soleil yéene kaa ne moo taxit mesures yi nga xam ne kon nguur gi jël na ko day w gën naa kaa taral laa la wax na tar tension yi na mitti na mitti ca jamono joo xam ne day taliban ngi rey waaw critique yéene kaay ak la mandat ah nee na boisson bi ñu naan vodi vodka mi ngi rey xale yi laa la wax ak di leen a dama ne critique yéene kaay nee na vodi vodka jooje ñi ngi rey laa la wax te suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi day daa mel ni dañ koo fëlantal de daa mel ni dañ cee xel waaye boisson bi xale di jëfandikoo day mi ngi def ay musiba mbaa ba kumba laa la wax parce que dose ba ca boppam moo mortel dose ba day rey yu bare yee nga ca bokk na ca nag wàllum cardiaque ah, waaw waaw dama la xale yi buñ ko jëfandikoo ni lé da ngay gis ñuy mel ni ñuy tàggoo seen sago ay problème mu comportement yu doy waar ca jamono jooje jub-jubal jubanti gi ah saay bu ñu xee muy gën di tax taali yëral Dakar Times ci coowal ONAS kale aha waaw waaw parce ki nga xam ne moo nekkoon directeur général ONAS day di Cheikh Dieng révélation mbuut yu doy waar yi nga xam ne kon moom la génnee day yéene xam ne moo am ca ONAS gee parce que Cheikh Dieng mi nekkoon directeur général ONAS tey waaw dafa jàpp ne wàllum guerre la ay entente direct waxtaan ba jubóo seen biir amul appel d'offre amul dara def curage yeeg ñoomin seen waaw dama ne leen directeur ba day ministre Cheikh Tidiane Dieye la tuumal la ilaha illallah ne société yi lée wala entreprise yi lée di ak Delta ay chinois lañ waaw ñooñee la ministre bi kon waxal directement ministre Cheikh Tidiane moo ko jaxase ak président Diomaye ak kilifa yi aha Cheikh la wax lii Dakar Times moo tax ba ministre Cheikh Tidiane Dièye waaw daal di cay taamu kon ñaan di entreprise moomee nag ah laaj na enquête de évidence Sénégal ne waaye waaw ONAS tamit day génnee nañ communiqué aha waaw waaw daal di weddi kon kii di Cheikh Dièye Cheikh Dièye ne leen coowal Cheikh Tidiane Dièye ngeen bëgg fay waaye du fayee noonu Sané direction ONAS fa day waaw daal di nañuy weddi Cheikh Dieng mi lé xam le carrément ne gis nga projet bi projet bi waaw amul fenn foo xam ni kon dañ faa bind ne dañoo war jëndal oto directeur général ba wala membre unité wu gestion wu projet ba amul te gis nga waa ONAS yooye waaw nee nañu dax ñu sax de dem nag fa ma xam ne nekkee benn maanaam porte plainte mar di taal waaw waaw parce que nag di dëggal ne ONAS gi lée mën naa jënd ab oto boo xam ne day jar juróom fukki million quatre-vingts millions ci projet bi yàq deru société bii di ONAS la ci kanamu ay partenaire am laa la wax bëgg a gëmloo nit ñi nag ne oto boobee da koo jot ci wàllum projet beeg yooyu an fan bi waaw loolu techniquement et légalement impossible mënul ne kon nag kuñ fi déggati nga yëkkati ay déclaration yoo xam ne loolu nekkul dëgg danañ la yóbbu fa mbaxana nekkee benn laa la wax Cheikh Dieng la ñuy waxal de waaye Cheikh Dieng day waaw la mu jàpp daal la boo leen gisee waa ONAS kon génnee communiqué bi te gis ngeen communiqué bi Cheikh Tidiane Dieng moo koy bind leen gisee ñu génnee ko nii du dara est ce que xam ngeen ne coalition président day waaw coowal ONAS gi lée Cheikh Tidiane Dièye ak Cheikh Dieng ah dama ne la indi na fa malaise laa la wax indi ni nii ak dund ko naqaree sax aa coalition baa ngay toj laa la coowal Cheikh Dieng mi daa war a indi ay explication laa la wax aa waaw waaw bu dee lii Cheikh Dieng wax dëgg la parce que mbir mi ci boppam dafa garaaw doy waar jubanti googee waaw évidence yéene kaay nee na ak ak yelleefu liggéeykat yi violation bu code des marchés publics ba dañu koo caxat-caxatte dama ne ne liggéeykat yi nekk ca port autonome de Dakar day ah ña ngay jubbanti nag Waly Diouf Bodian mi lée yoor yoor yéene kaay ne jub-jubal jubbanti googe moo am ca port autonome de Dakar nag bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax intersyndical bi kàddu yooyu nga xam ne da ko faa yëkkati day ay kàcci neen la du dëgg respecté nañu procédure appel d'offre ya délai respecté nañ ko procédure passation marché respecté nañ ko amul benn conflit d'intérêt boo xam ne kon daa am ca tànn ñu tànn kon cabinet wu manager ba ak consultant associé yo évidence yéene kaay ne ko mais mooma yeggale mais mooma yeggale ah gars yi ñoom ñoo ni ka Waly Diouf ba jaa moomee jël ah ca kër ga lay liggéey benn ñaar conseiller am la yor yor ne ko dama ne du dëgg amul benn contrat à durée déterminée boo xam ni jeex na ñu yeesalaat ko boobooy benn amul benn kontra boo xam ni kon day daw ni lée ñu suspendre ko dakkal ko dàquñ fa kenn pour kenn lañ fa dàqul jub-jubal jubanti day ci aéroport international Blaise Diagne waaw Asmalik la se traz! nee na audit bi nga xam ne def nañ ko ci aéroport boobee waaye ma ne kër ga xaalis ba nañ ko caxat-caxatee doy na waar am na lu ca feeñ de léegi ko yéene kaay ne ko la ca feeñ kay maa la koy nittali gis nga aéroport international Blaise Diagne googee waaw syndicat gi le day la mu naqarlu ab carnage financier xoolal la serveur serveur parking ba payant ba waaw ordinateur ya écran plat ya caméra de surveillance dañu may lépp réer mu waay serveur u dépose minute ba tapis roulant ya ñaari scanneru bagage à ay milliards lay jar dañu may dafa réer waaye bagage yi fu ñu dugg moo ma jaaxal l'observateur ne jub-jubal jubanti googee waaw yu xotteeku yu njëkk ya day mbalit mu njëkk ma mu salte ma waaw ma nga nii dee wàllum rupture kan doon wax day su lan demboo tuumalante yi nga xam ne nag maanaam ñu ko yàq ngi ni lée xoola ONAS Cheikh Dieng ña nga ca prolongation ba de nan la ñuy laaj ni lée nekkul dara lu dul ndemir mi leer li leer ba leer mooy gis nga lii ñuy layam-layamee ci wàllum corruption wàllum conflit d'intérêt jamono joo xam ne day nguur gu bees gi lée mi ngi naan jub-jubal jubanti ah mais jàppal bàyyil gaa mel ni tulleeg male ci yenn ci ay banqaasu nguur gi lée yëral la xew ca ONAS yëral la xew ca port autonome de Dakar ay coowal contrat yu doy waar ay mbirum conflit d'intérêt dama ne la gis nga boo sàgganee day projet Pastef bi lée lée ko nar a yàq ar di taali enquête yéene kaay ne gis nga crise yi nga xam ne nag moo am ni le tey bëgg a bëri ay crise à répétition soppiwaat doxalin de diggante communication politique ak publique ay tontante yoo xam ni day tardé na wala boog jubul coowal ONAS kaa ngi ni lée communication contre information port autonome de Dakar ak collectivité territoriale yi waaw un dialogue de sourds la kii day wax waaye ka ca kon du dégg Alaaji Malick Ndiaye waaw moom daal xam naa ne exemple la moom ci wàllum communication libération yi ne kaa ne document exclusif bi day ci aide à la presse 2023 ba waaw kaa leen nag ma wax leen kon xaalis bi lée yi écrite ba presse en ligne ba ay rajo communautaire ak ñeneen ñoo xam ne day jot nañ ci xaalis ba de maa la ko kii nag lam leen waxoon ca de ay ata ngi ni lée ñaari dërëm ñu mujj def recours topp ci gouvernement bi lée fan lañ mujjee xanaa ñu ñamal leen cinq millions kese maa la wax li ci jamono joo xam ne yow am na fi ay quotidien ak ay kër yoo xam ne li nu laal sursaane xoolal ma bureau poste Dakar étoile ba nekk ca centre ville galé bu passé 31 ay waay jëlee moo tax boo sàgganee gis nga waa présidence palais ba primature ministère finance assemblée nationale conseil économique social environnemental ak ay ambassade yu baree bari day boo sàgganee dootuñ jotati ay courrier postaux di maar day taali waaw waaw waaye liggéeykat yi day nee nañ seen i gi bu ñu leen taafantaloo laa lay wax nii ba leen de parce que bureau boobee 1950 ba mi ngi am te gis nga ci weer ñu génn ni la gën a gàtt juróom jëleewu fa ndam de Le Quotidien yéene ba kay ba léegi nii mi ngi mer ci contrat bi doxoon ci diggante Sénégal ak ñoom ci wàllum ndox mi te Sénégal dagg ko waaw buuru Màkka ba ba léegi nii lay ñoo mere de looloo taxoon nag ba mari taw ñaan mi lee dem ca Màkka waaye buur ba dee ba léegi daa mere Sénégal laaste Alaaji Buye Amar waaw ñiy wax naan ay président Bassirou Diomaye Diakhar Faye day da ko faa jëlee da koo dàq ak yooyee amul moo sàkku laa lay wax ni lee mujj dem toog aha affectation yoo bari di bu ñu la jëlee fii tey bu subaa ñu yóbbu la fee jëlee la fii tey subaa ñu yóbbu la fële sëñ bi buya amar bi ne jaare na fa sax bàyyi nag faf le mandat yéene ay waay Tambacounda ab laboratoire boo xam ne day ndeysaan daa célèbre léegi mais tristement ku ñu bëgg a yëkkati ay daan ci administration bi yóbbu Tamba ku ne kaso bu métti bale yóbbu Tamba ay waay deru Tambacounda mi le moo mujj naa yàqu di l'info yéene kaay ne ëllëgu parti socialiste day moom la gars yi di waxtaanee de ëllëgu PDS day laas nee na tout cas jigéenu PDS yi daje de la ñu wax daal mooy préparer nga am groupe parlementaire aha waaw lépp yéene kaay kan mooy wuutu Moustapha Niass ci boppal AFP ci ay fan yu néew dinañu ko xam dem naa ca làmb ja yor yor yéene kaay ne waaye yow Gris Bordeaux mi de est-ce que mën naa daan Zarko looloo jar a laaj ndaw làmb ñu nar a neex <laughs> waaye làmb ak lu mu neex neex neex neex neex neex neex bu leen fàtte ne suul gaz du daw yi taxulaa parce que Sonko jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree ma ne la